Sall excellence monsieur le Macky Sall mi ngi lay félicité tata Marème Faye Sall nit bu baax jigéen bu baax mi ngi lay félicité Amadou Sall sama xarit doomu ndey Mouhamed Sylla mi ngi lay félicité ñëpp a ngi lay félicité vraiment waaw vraiment daa bàyyi yaa a mérité fi mu nekk nii instant bii nag jub na nag jot na état teg ci yow loxo jot na état ministre finance finance la incha allah lii chaque at chaque weer six mois ñu jigéen ñi xool leen ci daabaay xale yi xool leen ci daabaay barke alxuraan kare mais Aziz Thiam Aziz Thiam Aziz Thiam Aziz ma ñëw gis la si foiru daabaay bi te kilifa nga si dëkk bi waaw kenn ku dégg Aziz Thiam Moustapha Thiam xam ni nit ku baax nga nit ku yiw nga doo dox si lu ñàkk fay waaw woon bañ a ñëw man man même ma bale waaw may wéet wala may raxas waaw Mbaye koy def xam nga may def loolu parce que xale am jom nangoo liggéey eh, boo gisee lii seeram dafay daw soo gisee seeram dafay daw bu ay eh, xale jigéen war na leneen naka noonu mais nekkuñu si loolu ñu ngi liggéey ñu doole. ay nag gouvernement bi moo war a ñëw gouvernement dafa war a ñëw waa FONSI dañoo war a ñëw xool xam ne xale yu jigéen ñi jox ay financement lii dafa daw yaram lii lii dafa daw yaram mbay il fallait que ma ñëw sama ñëw xam la man sama teewaay fii wut suuma fi xaalis wut fi dara damay jàppale sama ay jigéen sama ay ñooy organisé sama jabar di organisé sama dama ngi nii dama taxaw taxawu ko. te sax ma la. Uh-huh. waaw FONSIP nag FONSIP. Uh-huh. ak ñi finance war a xool lii jàppale xale jigéen ñi. Uh-huh. xam ne ñàkkuñu jom. taxawaalu jaay seen bopp. te loolu mën nekk. li laay war a sóor xaalis yi tasaare di ko maye ñeneen ñi di ko def loolu. li ñu def ñu bëgg a liggéey ñu dañu bëgg a liggéey. mbay il est temps yi. jaajëf nekk amul solo. merci Mbaye. aca ba ah, ah, ah, maa ngi ci foire bi gis ngeen gis ngeen ni Aziz Ndour sax wàcc waaw gis mas maa kontaan ne mu ngi lii lii dafa daw yaram aha rii naa di waaw waaw e man e reban ci noonu reban war bi lii lan la góoru daa bay ngeen ni waa góoru daa bay lii ba jàmm la baal góoru daa bay aha mais mas bi tas na ah mais lépp jeex na léegi soo xoolee foire bi waaw budget bi bi bi bi bi bi xaw ma consommation bi daa bàyyi Sénégal loo si wax góor daa bàyyi. kii mooy dugg góor daa bàyyi parce que boo xoolee def na fu ne. Ah. Chine. waaw ah, ah Thaïlande. waaw Dubaï. mbay mbay damaa kontaan. da nga ñëw pour play back wala. mbay tey fii day toj. da ngay ñëw pour play back. damay play back. waaw damay safar. Ah. damay live. ak sa copain dafa bascule bascule. <laughs> man man. ah dañu liggéey rek. waaye kenn sama waa ji délégué Amar sama xarit ji kenn moom. ay waay waaw gis nga ne xale yi. Bassine tamit ci biir jigéenu jàmbaar la waaw jigéenu jàmbaar la ñu ngi nii ñu wékk su ko neexoon dem dem jël xaalisam dem Europe mais fii la nekk di di di di daan doole sama tajum Fanta nga ci Serigne la ak la way

tey ngeen dégg dëgg nag. danga war a way mbay masum. yaayu maam naar ba bi jaayee sa yaay way war way. soo wayee mu neex boo wayul dafay neex ana waa kër Serigne Saliou Mbacké borom jurul. borom la banaal borom joowaan ga jaaroon xëy ga. ñi gën a bëgg Serigne Babacar Sy Malick. Bakar Daraman. Bakar Daraman aram loo maam Kumba Thiam. doomu ndeyu Nabou Laye doomu yaayu Nabou Laye Laye Laye doomu yaayu Nabou Laye Nabou Laye doomu ndeyu Suwaada Jallo way ko fanta danga doonu way danga doonu way soo wayee ndaanaan ngay doon soo wayee ndaanaan ngay doon Bakar barka sekk yor ta sekk ni jëriñ ma ci bee desam bay saa xëy yaa nga la ma jëre ma jaame su waa dana mu naa la bay su waa dana mu naa la na mu naa la umu kamara bintini bintini bintini bintini waaye benn jigéen du bon jigéen mooy sunu yaay Fanta Mbaye jigéen du bon jigéen du bon mbay bu kenn ci sa morom ba naan ko maa la gën eh. benn jigéen du bon jigéen ay sunu yaay jigéen dañ koo war a war maa gay jigéen dañ koo war a suturaal jigéen dañ koo jigéen kenn war ta xawi suturaan waxal jigéen kenn war ta xawi suturaan jigéen liggéey la xam daan doole loolu dëgg la jigéen ay yaay jigéen ay yaay jigéen kenn du ko dóor déedéet jigéen dañ war di foofu jigéen dañ ko waar di neexal neexal jigéen ju mën góor am naan melu fanta jigéen ju melu waay lanu xam ndax doone lanu xam day saan amul fanta bay day ñëw di ma joxel dépense fanta bay day ñëw di ma joxel dépense mu mi léeg-léeg mu metti lool fanta mbay mii bambi njaayay yaayam bi muy bëgg ay plastique laa doon sol bi muy bëgg ay carax doon sol bi muy bëgg la ilaha illallah boobu kenn ko mu woy saa maa daay waaw bi may nopp man ak moom ñuy ànd di woy simbu si simbu lañ xamante may woy simbu ma naan kii di waykat la moom it su wayee ma naan kii di waykat la fanta fanta mi rek laa nopp ci barke sëñ Tuubaa rek laa nopp kon ma yegg di ma ànd ak moom ba léegi ñu ngi may xam lépp Fanta Mbaye la te des na yeneen yaay yaayu naar mu ndaw way tàcc leen loolu waay ku bëgg Serigne Saliou Mbacké tàccul leen ma Fanta Mbaye bay ma sopp Serigne Babacar Sy man moo jambal kat waaw ku jambal Fanta Mbaye jambal fu mu nekk rek dinaa ko fekk dooleel ko bu ma jógee fii studio laa jëm studio Bakar liggéey waaye fu mu nekk dama koy doon koy dooleel ne bu dooleel sa jabar xale yëpp dama leen a dooleel ndeysaan waaye léegi dootuma dooleel kenn ku dul Fanta May ak maam naar sama doom ak kii ak kii jàng Diop seet si am na Wally Ballago Fanta Mbaye am na Mama Thiaka na Mama Fanta Mbaye Diop di teral ndeyam man yaa may raay di ma raaya raaya raaya raaya raaya raaya raaya ku bëgg sa chéri sa loxo ca kaw man yaa may raay